wu Thiès région wu Louga région wu Diourbel région wu Fatick région wu Kaolack ak réew région wu Ziguinchor région yi ma tudd yëpp bu ngeen fa demee fekk fa daaray l'islam loolu jar nañu leeral leneen ni mooy sëñ Abdou Khader tudd na wàllu inscription yi solo si am na solo lool ñun ñëpp xam nañu ne foo mën a jàng ci réew mi muy nasaraan ba muy école arabe ba bu mu mën di doon bala nga fay dugg dangay joxe inscription loolu leer na ñëpp te inscription yi ku ne xam na ne jéem ñi nga xam ne ñooy daara yi wala école nasaraan yi gouvernement bi di jox ay ndimbal du tax mu doy leen sax waajur yaay dañuy dañuy organiser wu di laajte ay inscription inscription yooyu ñuy laaj du directeur école ya waajuru élèves yi ñoo koy laaj kenn ku nekk joxeel ko sa doom waxuma laa ndax daara joo xame ne amul ndimbalu état bi mu leer amul benn ndimbal bu jóge ci nguur gi buy ñëw ci daara yi lislaam kon luñ fi def lu ne bu ko waajur yi deful dong yi defuñu ko duñ ko fi mën a def kon inscription bi mënta ñàkk ku ko deful am na ñu la ko defal sa moroom yu la ko defal say doom di jariñoo ci doomi kaw doomi ñeneen ay ay ay say moroom defe naa duy teggin ci ci diggante sax xale bi ak moroomam ci biir daara ji dañuy ràññee ne jëmm ji joxewul inscription loolu du sagal waajur wi kon nañ leen góorgóorlu ci inscription yi saa yu xale di bindu ci daara waajuram wàccowoo ak loola am na sax luñ ci andi woon ngir gën a ànd ak jamono mooy bu waajur bi bu élève bi di bindu ci daara ju mën a doon waajur wi na ñëw àndaale kayitu juddu xale bi bu ñu ñëwee jox ko ustaas bi mu bind ko laaju ca la muy soxla ci ca ak juddoom ustaas bi dina ko jël bu ko defee delloo ko aw këyitam du ko téye loolu day tax bu ñuy joxee lijaasa yi xam ngeen ne dañ ciy bind ay tur ak at yi ñu juddoo te loolu ñëw sukkandiku lu dul ci extrait de naissance am bu ko defee du am njuumte ci misaal buñ ma waree jox ab lijaasa ma tudd mbay ñu tudd ñu daal di bind Babacar ca lijaasa ba man moomu ma ko ndax mbay ak Babacar bokkul ci ay këyit nuroowuñu kon baax na loolu ñu jéem koo tàmm koy bind doomam indi ab ab ab kayitu juddoom oustaz ba jël la mu ca soxla delloo ko kayitu juddoom mu denc loolu dina gën a ñoŋal liggéey leneen li euh, mi ngi jëm ci ci ci wàllu versement yi sëñ bi wax ak congrès bi loolu moom du ma si dal daanaka li ma wax nii doy na euh, versement bi ak congrès ak congrès bi maanaam loolu yëpp ci kaw waajur yi la aju ndax daara ji mënta dox te amul ay moyen ay jumtukaay te jumtukaay yooyu nag mënta tukkee ci lu dul maanaam waajur yi joxe ko ndax laajuñu kenn daara ji ne direction bi ne nañ jox leen ma ma fay salaire nangam koo fi gis muy liggéey lu ci ëpp day liggéey te yàlla tax kon nag wax dëgg yàlla lu jëm ci essence wala leneen nga xam ne daara ji day dem ji defi ay tari waaye wax dëgg yàlla essange boobu ñuy lakk waajur yi ñoo ko war a mën a joxe ku ngeen bëgg mu joxe ndax sëriñ bi day yëkkati ci poosam joxe ko mën na ko de waaye duy teggin ci ñun mu duñ ko joxeel nañ leen góorgóorlu ci loolu ci congrès bi ak ci versement yi asalaamaaleykum wa rahmatullah kon mën nañoo jox kàddu gis sëriñ Amar Diagne bu ko defee mu tegu ci euh, sëñ Abdou Khader Diagne. asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi ñu sante yàlla. julli ci yantabi alayhi salatu wassalam di ziar kilifa gi si Abdou Salam jenn diko ko ñaanam yàgg bi te kon ñu gëna and ak tewlu rek deglu kaddu yi ndax li ni wax ni maam bina la kon nak kep ku joxewon 5000 francs wala nga joxewoon dix mille nga tewlu baaxa baax bu dee président bu àggee man a maam leer a sawaa daara cinq millions maam te ñu ko jaayee ndax day mel ni cinq mille cinq maam coow yi naa bari te ñu bëri maam xamuñu lu si aju kon ci leeral dañuy tënk rek ndax suñu paree bilan maanaam def na ko ay feuille photocopier ku ci bëgg mën ngaa ñëw jël benn yóbbaale sa dëkk bàggee nga toog xool baax a baax lu ci leerul rek waxtu woo ñëwee waxtu woo wootee téléphone leeral lépp ba mu leer si yow kon leen lu ci lëndëm rek ak leen lu jaxasoo maam amu ci yàgg nañ koo wax maam cinq mille francs yi ñëw ci daara ji day ñëw dañ koy séddale ni ñu ko séddalee mooy ni ñu ko séddale maam ci ñeenti but mooy ñeenti cër am na kees bi wax maam kees transport yàgg ngeen ko dégg kees transport soo ko déggee mooy kees gi nga xam maanaam mooy oto yi wàllu gasoil bi ak wàllu paas ak lépp jëm ci transport mooy kees transport kees chauffeur soo ko déggee mooy kees gi fay chauffeur maam juróom-benn weer daara ji mooy kees sëfoor keesu restauration mooy kees yor wàllu añi ajuma yi ak facture courant daara ji ak facture ndox ak kafe ak sukkër seexte de say maam moo ko yor yaakaar naa mi ci mbooloo mi keesu Daaru mooy xam ngeen daara ji saa su ne añ ak reer ñëw comme ni ko Bambey a waxee sëñ bi këram la res waajur ñoo res daara moo tax ñu tuddee ko maam kees Daaru Salaam añ ak di fi ñëw saa su ne kon loolu mooy ñeenti kees yi léegi bu dee kees transport six mois yi weer wu ne dañ koy wooteel budget cent mille léegi six mois yi nekk six cent mille bu dee kees chauffeur bi weer wu ne dañ koy cinquante mille six mois nekk trois cent mille bu dee kees secrétaire de sëy weer wu ne dañ koy génneel maam budget cent mille six mois nekk six cent mil bu dee kees Daaru Salaam weer wi dañ ko génneel soixante quinze mille six mois nekk quatre cent cinquante mille léegi nag kees gu ne lim jaay ci weer wi mi ngi fi maam détails yi mën naa gudd lool te waxtu du ko maye waaye dañuy tënk rek suñu pare maam président bu ci am lu muy laaj wala lu ko jaaxal maam suñuy direction suñu wooy dina dinañu ci moom leer ko lépp ba mu leer te maam leen lu jaay tamit maanaam am na ay fiches yu ñu koy remplir di nga maam date bi nga ko jaayee ak ci li nga ko jaay ak ñaata la toll lépp maam mi ngi fi tegee léegi bu xoolee caisse transport maam weer wi ne jaay mi ci këyit bi waaye day gudd li jaay six mois la wax caisse transport jaay na six mois yi six soixante deux mille cinq cent te ña ko wootaloon budget six cent mille kon day amee maam bor cent deux mille quatre cent daa lekk ni ko so wootaloon yëpp ba romb romb soixante deux mille quatre cent caisse transport bu dee caisse chauffeur moom amul desal weer wu ne chauffeur day ñëw jox ko cinquante mille def ci poosam le reste moo koy mottali six mois trois cent mille lay doon bu dee caisse chef de sey mooy caisse yor añi àjjuma yi sukkar ak café ak añi réunion yi facture courant facture ndox lépp jëm ci wàllu lekk matelas li ñuy luyeeg tournée yëpp kese boobu moo ko res ñi ngi ko waxoon budget six cent mille ci six mois yi jaay na six cent quatre mille sept cent kon moom daa ëppal quatre mille sept cent ci ni ko wooteeloon budget six mois yi kees daaru salaam añ ak reer kooku mënta desal kon quatre cent cinquante mille la jaay six mois yi léegi bi xoolee li ko degee maam 1er décembre ba 31 mai boo boolee ñeenti kees yëpp ñu ngi jaay 2 millions 17 mille 500 francs lañ deux 2 millions 17 mille 500 francs moom na jaay ci juróom-benn weer yëpp ñeent kees yëpp léegi li ñëw ci ay cinq 5000 mi ngi toll ci 2 millions 140 mille dëkk yëpp ni joxe mi ngi toll ci 2 millions 140 mille. léegi deux millions cent quarante mille léegi te ñu ngi jaay maanaam deux millions dix sept mille cinq cent kon maanaam day des cent vingt deux mille cinq cent léegi cent vingt deux mille cinq cent ci liquide jamono yi mi ngi nii ci enveloppe bi tax Baye Talla Sall moom la cinq mille cinq mille desal Baye Talla Baye Talla léegi lii boo ko compté cent vingt deux mille cinq cent la mooy cinq mille cinq mille li des ginnaaw bi mu jaayee ba pare am na tey maam ñu joxewul ñun lim ñu joxewul mi ngi toll maam ci deux cent soixante quinze mille yu war a ñëw kon dëkk yi joxul maam ñu ngi leen xaar ñu indi seen i versement cinq mille cinq léegi bu boolee cent vingt deux mille cinq cent yi fi nekk baytaala mi ngi nii enveloppe baa ngi nii bu ko wàññee moo ci nekk ak deux cent soixante quinze mille yi war a ñëw day doon trois cent quatre vingt dix sept mille cinq cent kon mooy de ci cinq mille cinq mille li ko waral mooy li daara yi yokk moo tax maanaam ñu financé te cinq mil cinq mille loolu moo ko waral. kon bor moom amu ci ci wàllu cinq mille cinq mille ën nañ cinq mille yi jaay nañ ci des na des yu ma ngi nii ak président bi léegi li war a ñëw téeméer su ñëwee teen maanaam day jox suñu baxaadir jox ko président bi kon cinq mille yi nga jox suñu baxaadir yëpp agsi na si ñun na nañ ko budget yi woote nañ ko benn bu ne signé nañ ko mi ngi fi kon nag lépp solo mooy xaalis bi lim limaam nekkul xaalis boo xam ne dafay tege saa su ne dañuy financé suñu xaalis toog di xaar mu ñëw kon nan góorgóoru baax a baax bi dëkk bu ne joxe na benn sa trente mille maam daa gën a noppale waaye amul benn weer boo xam ne maam budget dina mën a mat te weer wu ne lu mu néew ne di ko soxla maam deux cent vingt cinq mille di ko soxla pour mën a def say say ma mais ñun dañuy financé toog di xaar kon bàyyi may a wax moo ci nekk liggéey ngir yàlla moo fi nekk boo ko mënee xëy na boo ko mënut a maam yaakaar naa doo fa a kon cinq mille cinq ni ma gën a gaaw maam loolu dañuy dimbali ci wàllu wàllu budget kon yaakaar naa ci tënk lu ma ci wàllu cinq mille am laaj bu ci laaj ñi ngi ni toog nañoo poser question ñu répondre ko ba ñoo jóg président bu salo fooyu nag tey maam mi ci bureau bi baa ngi suñu xaar jox ko kenn ko loo si waxtu wañ woowee rek dina la wuyu leeral la xaalis fi mu jaar ak des beneen mooy congrès képp joxoon nag suñu baxaari sa quinze mille agsi na si ñun cinquante huit dëkk fi ñu ñoo joxe kon cinq mille cinq mille cinquante huit dëkk quinze mille boobu mooy congrès yi léegi cinquante huit dëkk ñoo joxe kon léegi boo jëlee maam cinquante huit dëkk léegi fois quinze mille day doon huit cent soixante dix mille kon fi ñu toll nii huit cent soixante dix mille moo fa dajee woon xam ngeen loolu maam xaaj ba mat congrès léegi huit cent cent dix mille léegi boo génnee nag sept cent dix mille ñaar moo koy des huit cent soixante-dix mille mooy sept cent dix mille yaakaar naa lu lii moo koy des nga war a jënd ceeb ak diw ak li ci aju kon day mel ni maam cinq mille cinq mille ma euh, quinze mille francs yi maam doyul ci congrès xaalis sax bay doy léegi li fi daje maanaam li essence yi li ñu jaay jamono yi mi ngi toll ci un million cinq cent cinquante huit mille quatre cent un million cinq cent cinquante mille quatre cent lan jaay fi dool nii te dëkk maam ni dajalee mi ngi toll ci huit cent kon six cent quatre vingt mille quatre fi ñu toll nii ab bor la fi tegee ndax mu leen a ñëw toog war a xéwlu ñu taxaw di xoolante il faut ñu dem maam lijjanti ba mu ñu mën a xéwlu soo àggee maam te su jàllee président yi waxtaan lii nañ ko war a fàtte ndax mi ñu fi xaar kan moo koy fay maam cinq cinq yi ñëw mu leer ñëpp maam sëñ maam amul benn seen bu ñu ci laal sëñ bu salaam amul benn bu ñu ci laal xamul sax ni muy doxee ak siwul ci moom quinze mille cinq noonu la moom xamul sax ban dëkk joxe ak bu dëkk joxewul kon waajuru maam lii maam lii maam seen mbir la yéen a ko moom sëñ bi yoonu nekku si te lii maam war a jël ay matukaay ndax maam budget yi day gën di yokk day gën di yokk bu ñu xoolee maanaam bu ñu comparé budget deux mille vingt deux deux mille vingt trois deux mille vingt trois deux mille vingt quatre dem différence bu ngand ndax fi ñu doon lii maam liñ jaayee boo xoolee maam 2022 2023 am na différence 385 bi ci yokk léegi vingt 2024 bi fekkoon maam daara yokkul kon dañu am bor bu mag a mag kon daara yokk bi yokk moo tax 5000 yokk ñu mën a am mën a am aw des loolu ci bàyyi xel kon naa nañu xam daal jamono yi ñu wax nii maam ci congrès bi